Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yep, sommes ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yo sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi bi pinac. oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak si emballage yu civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison jéggalu ah ci la fois passé bi mo fi ñëwé ban bëgg daf may neex yow kessé ci kër gi ni naaysul té jigen nga li yaq sa der dafa yomb lolu rek waral ma doxale nonu Bima xamé né ne am nga koy fréquenté bu mu bëgg la tak loolu rek tax ma bëggoon a xam fi mu dëkk pour waxtaan ak moom mais bu fekkee ne am na ay ñool ñool ba nga jàppal ma ci dara dama lay ñaan nga jéggal ma ah, baax na jéggal naa la parce que ndax man sama xarit nga te man yow rek laa am aram bi lay tons di la dugal ci biir gaal bi lan la la wax tons dañu tase fii muy ma nañ dem ma yóbbu suñu kër nga nekk fa bay day fen si sama nijaay la day fen kër gi moomu ne ko dañ fee luwee rek dafee luwee ñu luwee yéen nag neexu ba neexu mais paa bi bañ ngeen ko di say nijaay mais ngeen ko su xodee de wuy ma arab xoolal nga déglu ma bu baax li may wax daf mu daf sérieux laa lay wax nii li may wax yow nii waxtaanu sérieux la kër gi moomuñu ko borom kër gi dañ ñoo kër gi jóge na voyage nee na dafa soxla kër gi léegi nag la problème à nekk mooy ñun yàlla dimbale ñun ñun kenn du toroxal am na néeg ñun àll nañ àll nañ ñu pantre boo xamante ne macha allah doo nga fa mën a ne léegi nag yow li ma lay conseil mooy ni jaay gëj nga koo gis moom ne watu fi moom daa génn kër gi faat bu fi ñëwee balaa mu fiy ñëw xam ak yàllaa xam léegi nag li ma lay conseil mooy jéem a xool noo jëlee say bagage waaw noo jëlee say bagage nga jéem a xool foo nekk incha bu ñu lijjantee bu ñu amee kër amul benn problème dinañ la woo nga gérer comme ni nga ko doon gérer waat ki nga euh, añ bi tax duñ koo dëbëyee. mais ku la yóbbu anam duul neexu la waxal yow yow da laa faroon la bu jeexal sama xol ba waay duñ ñu ba pare ah disparaît lu ñu ba pare nga ne nekk am ay xam naa ne bànn ngeen tuuti doo leen ma fi bàyyi. yow sama caga yow ma nekk yow dama laa mën a tëddee yow tëddee naa la bi nekk diir bi nga nekk ci kër gi ba léegi tëddee naa la. ay caga ngeen ay dama lay dama lay laaj tëdd dama laa tëddee yow. la tëddee ba nga xam ne suñu caga suñu njaam lu ci guddal lu fi weer man du ma sa morom xam nga la kër gi ngoon jëlee say bagage nga génn ndey kër gi lu leer laa wax. yéen da ngeen fu ma nekk. ak paam neexoowuñu quoi ni may xoolee moo ma neexul. tool fu ma nekk daal laay laay laay jéem a lijjanti. yow kër gaa ngi nii ni yàmbalan kenn ñëw fi man dong maa fi ne su jikko ji bàyyi ko nga ñëw. non yooyu nee naa la jeex na yooyu jeex na. yow est-ce na bii laay jeex na jeex na.

exactement. Ah. booy aram aram waaw day génn kër gi nga ni day génn kër gi nee naa ko tey préparel say bagage te ngay génn kër gi mais est yaa ngi xalaat yow yow aram bu génnee kër gi ñun kan moo ñu toggal ñun kan mooy demancé xanaa neew ma yow yaay togg yow est yaa ngi réfléchir stratégie la yow fan yi nekkoo ci projet mariage yow bëggoo suba suba suba suba suba mareetu sëy si waaye léegi yow mareetu bu sëy see fan lay dugg ba néeg léegi ñaari néeg a fi ne benn bi maa yow ñoo ciy fanaan benn bi aram moo ciy fanaan léeg du ñu génn aram nga waajal benn néeg bi mu woon nga peinture commencé def say entretien nànk-nànk nga xamante ne nii lépp day yem mareetu bu ñëwee rek day dugg néegam. très bonne idée. ah très bonne idée très nijaay gis nga ko fee gis moom moo ñu sonaloon. ci wàllu lekk geeg añ geeg yooyu nan def comme ni ko daan def ku nekk xam ni sa nooy tojee sa bopp jinax téléphone idée téléphone idée ñàkk a xam wax nga dëgg man maa ngi si mariage wax nga dëgg da ngay maa ngi si mariage kon wax nga dëgg léegi lu mu wax naa ma ay dumm ngeen patati patata génn ma kër gi patati patata day génn gàlle bi loolu laa lay waajal stratégie anamu mu ngi ci biir day nday génn kër gi avec plaisir. voilà Bye ma dugg ci sax wax ndijaay moom baa xam nga ne noppalu na ci sëy bi sama ndijaay dootul wax ci sëy bi instant bi moom pare na ci sëy bi ah. waaw alhamdulilahi rabil alamin moom moo dem ba génn responsabilité bi ci sëy bi ak wax ju bëri ji ci doon amee sant yàlla yàlla paa bi <laughs> bi sëy bi sëy bi waaye sant waaye ku gën a garaaw paa bi moo fi ne nga ni sama mag biraa la tudd sama mag sama mag paa bi moom man leer na ma ne dégagé wu na ci sëy bi loolu moom lu ma leer la mais gis nga kii fi nekk xam ma suñu cee waxtaan parce que nekk fi woon loxo bi day doxantu day ginze rey la mën na laa rey fii nga toog sur le sang te dara du ko ci fekk prison la jóge génn na fi mu ne nag nee na naa ko tegtal seen kër mu ñëw fi dama ne ko nag ma ko ko wax ma ko wax fi mu ñëw fi ndax day sàcc te sama nijaay moom xam naa ne moom génn na ko ci sëy ba mu set te bis bu duggee ci sëy bi moom dootuñu nga leen Marietou yow suñu ku nu ko nar a yàkkal maa yow jaral na ma tay la sama bakkan amul mbindeef bu ko mën a yàq ci kaw suuf paa bi lañ doon wax dégager na responsabilité am ci sëy bi nga ni sa dafa am sama mag boo déggoo li ma la suñu sëy bi laa la wax bañu ma ci ñàkk sama bakkan. jaral na ma faayit gu dégg bëccëg suba ngoon xanaa moom daa dof hmm, comprendre yow li ma la wax kii génn prison amagul trois jours ci rey nit jaral na la sa bakkan te ngaa bañ dugg ci yooyu. Marietou man dama laa nëbb sam bopp wallaahi dama laa nëbb sam bopp Marietou kooku ngay wax maa ko gën a sadik pour pour inquiéter hmm. maa ko gën a sadik maa ko gën a wéyu. ma la won wuyu Bandey. te man. bëgguma nga jox ko sama numéro mom aussi bu mu am sama numéro. loolu nu mu mën la ko soxla ci ben lieu ma ngi ñu toog. man nga ko wala mënoo ko. sama ndariñ la rek sama arrangement la tamit. ok dina fexé ngeen daje Lion. Lyon samedi soir wanu la ko ndax dama la bëgg nit boko ko bu ko wan say capacité ak say ñangaay ak sa dëgeur fit buma taxé koku buma bu ko bul wax bul wax du wax mareetu nak dama def garde armée mareetu man dem na bango xam nga lan moo bango commandant bi dafa ma mbéj ma mbéj ko nu tëj ma prison eh, bango un mois ferme un mois ma nanuma sama ngor lay dundé mbiskit lan lay jox ben mbiskit ak ndox tuuti de goma de ñu genn mu wax ma wax da def na ceinture noir koku manila Mari la Marie Diof plus inquiété wu mako gëna wuy mako wuyu mbandi bu waxé du wax koku budé mom moy dess ci sëñ bi bañ non day am na ñëw ba jakarlo man nga xam ba xam <laughs> ngaa bañ a dugg ci kooku. wuy ma mi ngi fi. mi ngi fi nee na naa ko tegtal ma ko tegtal. tooñ nga ma. Ah. tooñ nga ma xam ko de te xamoo ko. Hmm, baax def nga lu ma may lu ma metti nag. maretu musoo maa tooñ waaye tey tooñ nga ma. maretu wuy ma amu numéro téléphone wax ba sama xol bi di sax. anamu anamu fan la ne wuy ma bu ma tooñ wax ma fan la ne. xamul fu mu nekk waaye léegi nañ bàyyi wax jooju nañ bàyyi wax jooju yaa ngi wax ba sa tension bi di jug yow tamit. sama tension baa ngi jug waaye kii xanaa daa dof. waaw bàyyi loolu bàyyi la wax ci kooku man xam naa ko xamoo ko kooku lu ma la wax si moom takk ko téere ray la ak naan ndox la yemale. ray kan suñu sëy moom man moom bu ci desee moom man jàpp naa ne sëy bi dootul am ndax moom ndax moom. waaw léegi loolu lépp na amul dañ ko gérer dégg nga fexeel ba ma gis ko. man du ma ko fi tegtal xalaatuma ko loxo bi day dem déggoo li ma la wax ah, boo ma ko tegtalul tamit wala boo ma ko wanul day yàgg waaye suñu ñeenti bët yi dina daje te suñu yi bu dajee dina xam ni dëgg dëgg dëgg dëgg non saala ko lu ma wax sax. engagé nga ko de. mu sedd ba ma gisante waaw bàyyi mu sedd waaw kan la yooyu ay resto. ah dafa xew man xam nga la mooy lan moo ma metti si Sénégal couple bu ñu demul resto rek day mel ni ñoom couple luñu ay resto yooyu noonu am na lu ko gën téeméer junni yoon yow paas bi ngay paas di dem resto xool distance boobu 1000 dem 1000 ñëw nga dem consommer ay 5000 et quelque doo ko teg fii ñu am suñu benn ganaar bu baax def suñu ñarum sow bu toog ah walla ñu def suñu lin bu toog wala ataay bisaab bu toog ñu toog waxtaan yow li nga mën a œuvrer sa kër jak ki nan bëgganteel mëno ko euh, yow te deneen dem rosso ñuy wax wax ju neex ba pare ak ma bëgg la phone est ce que dinañ ko fa mëna am. rosso sociaux yi. xana bëggoma ma. ne man wuy ma bala moko na neex ñu wét ci mil neeg bi may wax de la tap ngay ngay wax di ma tap dama bëgg dem tàpp. insisté nga. do mu yobbu sax ñu dem yow tamit nak waxtaan yam to comme non nga ko gisee. parfait fait. man na la bëgg dem légui kañ. jàppal. yaa yow sa cëguru guy jàppal. Ah. Ah. noo ko bëggee ak foo ko bëgg ah. dafa lu la neex. <laughs> Euh, Dera. yow Dera foo jëlee cere ji ah ah waaw waaw waxuma loolu Dera xam nga yow ah cere ji xajam na de. <laughs> cere ci àq la. waaw waxuma loolu euh, yow. damay maye sama jarbaat dégg nga. da ngay takk eh déet deeraa takkuma damay maye sama jarbaat damaa bëggoon nga tog togal ma. tiktok tiktok euh, tiktok waaw voilà dégg nga parce que yow dégg naa ñu ni tiktok bi ah siiw nga ci dégg ndax yow dégg naa waal Seck day seetaan sa sa tiktok. dogguma la sax président barki démb mu ngi may woo. xam naa Marème <laughs> nañ ko tuddee ti doom Marème ku am sa doom tuddee Marème xam naa daa bëgg ma tiktokal ko ko eh. bul jaaxle côté boobu acca ah waaw baax na naa ko gëmee noonu nga ko waxee ndax yow moom gëm naa ni say wax moom xam naa ni <laughs> léegi nag damaa bëgg nga tiktokal ma mariage bi dégg nga sa mariage Dera man marié wu ma ah. sama jarbaat laa maye ngalam buka hambo ne mari ado ni fone yaay ma mari ado waaw waaw legui nak lima bëgg moy nga tiktok alma waaw deug nga defal ma lu sama jarbat, bi dafa nek sama jarbat bo nga xam dama ko dama ko fonk hmm, hmm. deug hmm. ak ak ak ak salah sala men mi at ko yo xam nga sala wax gis nga lol dina am tok ciuss day am lan eh udah, ñewal wa lagi, dang ma koy tiktokal Euh, defal ko defar ko ba mu neex rek hmm. de nga na jaar yoon de nga bu baax ah waaw yow sama xarit nga comme ni nga ko waxee rek yow comme ko ya waxal sa bop comme ko wali sek day siwur sama TikTok waaw yow xam nga lol loolu Youssou Ndour sax kay dégg naa mu ngi setan say TikTok <laughs> kon nak kon nak il faut ñu dugg fenn waaw yow nda nan nga waaw léegi léegi xam man moom bu ma la naree facture xaalis day metti waaw ndax man samay follow samay follower gis nga ko ndax du ma ne du ma du ma la facturer samay nombre follower rek mhm. loolu xaalis la bu ma nee la am naa quatre vingt kon nga may fay ah. ndax nit ku ne doo ko diviser par mille laa koy defee dëgg la dëgg la kon nag da may booy da ngaa baax non non baaxaguma booy fexel ba ñu fëlërte bu ñu fëlërtee rek mhm. am problème les quatre vingt du doon quatre fëlërte ngeen flirté <laughs> bien rek. koy flirté luy loolu. bàyyi ma def droit au bi. droit au bi. waaw luy loolu. maanaam man ak boobu ñu fóon ñu fóonante. koy fóon. mooy seet bi. ki may maye moom ngay fóonante. boo bëggee bu ma fóonante moom bisu laabaan ba boo la neexee ma ñëw filmé kii bi tiktok laabaan bi. waaw déet yow déeraa yow lu la dal. dara yaa ngi mel ni ku abbi rato naan fóonante. ah hmm. sama kii rek laa wax de. man dama lay fay. Hmm, tiktokal ma lu neex. dégg nga mu jaar yoon parce que saala laay may sama doom sama jarbaat. saala l'international. kon xam nga saala. am naa ko yii saala maamam moo njëkk a dem guerre. kon jàng ya tas na. histoire maamu saala mu wax ci wala. histoire maamu saala yow dañ dañ cee xam dara. ba nañ bàyyi mu teg. nañ bàyyi ba beneen yoon ba ñu daje. <laughs> dégg nga mais kii bi mariage bi boo annulé maanaam ci diggante bi. bu dee saala dañ koo takk xalaat yooyu noonu wala mu yoom yooyu noonu daal mën na ci am mariage bañ ay mari takk xalaat ay annulé mariage yooyu yëpp waxuma ko ñaanal ma jàmm rek yow mm. dégg nga mm. projet la mm. léegi tiktogal ma baal ba jouru mariage ba ci guddi boo ñëwee ma fay la dégg nga kon mais laabaan bi du ma ko mën a tiktok de yow bul yow ku laabaan deera ma bëgg assister rek. looy assister yow ci togal ma lu neex. waaw waaw bu jaaxle bu jaaxle. waaw voilà naan seere lool ñëwal kër ga. dégg nga eh, war ngaa takk nangu tig togal la de. eh Dera. Ah, est ah? yaa ngi affiché NG dawal kawoy. Eh. loolu boo ko defee rek tak xam eh. naa bu affiché. waay yow. naa la cere ji. na jërëjëf ji day tax nga takk de. takal. eh takal.